Salut les amis des Sport TV, merci encore de la confiance renouvelée, merci de du like, merci de des abonnés, merci également du bail du commentaire. Un plaisir renouvelé chaque fois de partager des informations. En mbokk sénégalais fait foule maintenant 14 jours du Sénégal àdduna wërngal Cup, ñu ngi leen di jaajëfal ñu également ci lal hôpital yi ci kër de février, feebar na suñu borom fëgg seen bopp ñu qui ak une ñu ci yi erreur judiciaire ak génn leen li ngeen deful yóbbu leen fa suñu borom génn leen fa eh, dellu leen seen i njaboot ñu dëddu àdduna suñu borom xale leen àjjana fi daw si gars yi te on avance ensemble dans la magie de eSport TV l'actualité en en continu gars yi fas yéen waxtaanee nga xam ne nag donc ki di Bouna Sarr Bouna Sarr mi wax ci li nga xam nak moy mooy ñoom équipe nationale du Sénégal li tax demul équipe de France euh, Bayern de Munich tey seen taxawaay ak par rapport ak aussi Sadio Mané apportam ci li nga xam ne équipe nationale du Sénégal ak aussi fofu noonu ci Bayern de Munich loolu yëpp dañu fassiyene waxtane waxtaanee mais d' abord hein, Aïd Moubarak hein, ak communauté musulmane yëpp hein, ñi nga xam tay lañu la ñu tabaski ak ñu fassiyene yéene tabaski ëlëk yalla na jamm yàgg di baal ñëpp àq nak parce que comme on dit rek euh, sa su nekk rek di am juumteef boo bo ne suñu la ndax matuñu suñu borom rek mo mat Koulibaly qui a tenu à présenter ses voeux à toute la communauté musulmane de manière générale. gars yi nag nouveauté bi moy FIFA fini ne dafa bëgg coupe du monde bi ñëw coulisses yi li nga xam moy vestiaire yi am caméra pour ñi nga xam nak ñoy sétal match yi mën en direct yenn ci nga xam nak mom mo fay daal am soit mu nekk en direct soit également mu nekk en décalé euh, pendant ce temps aussi ñi nga xam nak moy wa Mexique l'idéal daal moy seen maillot jëm ci. coupe du monde bi donc les mexicains mayo yi la sol ci coupe du monde ba war a amee ca Qatar nekk mayo boo xam ne pour mën a sincèrement yàññi na mayo loo xam ne waa Adidas ñoo leen ko defal de même que également Colombie ngeen gis ko nii ah donc ñoom tamit seen mayo ñu ngi nii waa Colombie mayo bi la ñu fas yéene sol ñoom jëm aussi ci coupe du monde bi am Qatar donc coupe du monde bi daal en tout cas gars mayo yi daal ñu ngi nii man moom li ma wax rek. c'est digne d'une équipe nationale de ce rang quoi donc et franchement aussi gis ngeen mayo yi nak bi national Mannschaft donc Allemagne maillot bi la les des sol jëm ci li nga donc du blouson donc blouson national Mannschaft bi ni donc di maillot modèle bi modèle bi lañ ne moom la sol jëm ci li nga xamné nak mom moy donc euh, coupe euh, du monde bi wara am ci Qatar à partir de novembre national Nationalmannschaft bi nga xamné aussi ah na ci grandissime favori yi par rapport li nga xamné nak moy mondial bu ni mel pendant ce temps Edouard Mendy ak wa Chelsea ñom ñinga ci États-Unis fofu lañuy ñuy nak sen préparation sen hivernale en quelque sorte jëm ci waajal championnat bi di ñëw Thomas Tuchel nak mi ngi recruter parce que amna joueur yu bari yu dem bokku na ci aussi défense bo xamné ne ñu ngi wax ay joueur yu ci mel ne Kalidou Koulibaly né mën nañ fa daal di ñëw du côté de Arsenal Marquinhos attaquant là hein. donc il a juste 19 ans moom gis ngeen ko ah, signé un contrat professionnel numéro 27 des Gunners donc ak famille am ñoo nekk ni. donc moom daal nekk na joueur boo xam ne aujourd'hui nekk na pépite yoo xam Arsenal ak Arteta ñoom la ñu fas yéene sukkandiku ngir championnat bi ñu am résultat yu pendant ce temps Paul Pogba a signé son contrat euh, du côté de la Juve lii gis ngeen ko visite médicale là. donc Paul Pogba qui est revenu nouvelle hein, disait non non nouvelle aventure encore pour Paul Pogba même style presque ah hein. numéro mu doon teinté bi en blanc foofu non du côté donc de la Juve. Pendant ce temps également Bounassar hein, donc le joueur sénégalais donc international sénégalais dellu si qui ci li nga dans l'équipe équipe nationale du Sénégal ak aussi euh, lii di euh, plutôt hein, euh, convocation bratem du côté de l'équipe de France dellu également ci relation avec Sadio magnifique Mané donc Bounassar bi nga été ne aujourd'hui Sadio Mané quoi qu'on puisse dire hein, de manière incontestable moi parce que moi Sadio Mané xamante nañu depuis mai années, Sadio Mané il a mûri mentalement il a mûri c'est un leader technique et moi leader technique de l'équipe nationale du Sénégal et que joueur xam ne aujourd'hui ah buy wax sax da ngay yaakaar ne beneen nit la mom buna Sarr wax na li nga xam déjà mooy transfert de Marseille à euh, donc Bayern Dominique wax na ni fa demee ndax nee mom moom benn jour tok toog ah agent am ne ko bon yow euh, waa Bayern Dominique dal ñom ñomay wax say wax donc dañu bëgg transfert la foofu moom nee sur le coup xamul won nim mu demee ah, donc sur le coup il a pas comme mu coupé après le tok prendre conscience né équipe bu melni Bayern donc mom moy top ni quoi nee na ci loolu noonu le la tité wa waa woota wat plutôt ki nga xam moy agent am ne ko mais loy wax ni agent bi expliqué ko nee ko nak

Ming lay daal di topp loolu daal ki nga xam ne doon donc di Bouna Sarr wax li nga xam ne mooy jugeem Marseille nee na nag bu sañoon mun bëggoon na jouer li nga xam ne mooy Ligue des champions ak Marseille mais aussi boo nekkee ci euh, club boo xam ne aussi am na beneen club boo xam ne nekk na li nga xam ne mooy euh, champion parce que la l'année d'avant xam ngeen ne waa Bayern ñoo dooroon Paris Saint-Germain nee na lu ni mel doo ko refuser moo tax moom automatiquement il est parti là-bas c'est vrai que également ba mu demee du côté du Bayern Dominique. Munich am na li nga xam ne nag mooy adaptation boo xam ne waroon na ko fa am temps d'adaptation parce que ba mu ñëwee dafa fekk entraîneur bo xamné ne déjà amoon na euh, ay équipe yo xamné joueur yo yoo xam plutôt daan jouer ak ñom néna nak nag yegg seen foofu première saison bi ça n'a pas été une saison facile parce que Bouna néna amna problème euh, bo xamné même blessure bu met moko ko muy li nga xam blessure au niveau du genou genou bobu non ba légui mom moko koy causé ay soucis et que néna donc même équipe nationale de France hein donc bañ ko convoqué bobu non dafa waroon na dem euh, agent am ko est-ce que mën nga dem Clairefontaine et tout qui tamit di adjoint euh, Didier Deschamps woo ko mais nee na euh, ci diggante bi nag médecin Bayer ne ko nag lii boo fa demee mun na sa par rapport ak blessure bi nee finalement loolu la décidé daal di mais loolu tax demul équipe de France et que nee aujourd'hui regretté wul li mel par rapport à Sadio Mané nag aujourd'hui nee aussi Sadio Mané Le fait que ñëw Bayern c'est un joueur boo il peut apporter énormément au Bayern de Munich c'est un leader technique c'est un joueur boo également Julian Nagelsmann compte sur lui parce que Nagelsmann aussi nee c'est un entraîneur boo xam ne dafa am ay idées yu claires loolu bu na saan ma wax entraîneur aujourd'hui aussi am temps d'adaptation boo xam ne un Monaco et que ren gëm na ne moom Bayern bu ren mooy gën a performante gën a taxaw Bayern bu déwoon par rapport ak déjà recrutement yu ñu def mais aussi mais aussi surtout par rapport ak joueurs yi ñu am notamment Sadio magnifique Mané donc Bouna Sarr aujourd'hui qui ne cache pas son vœu jouer li nga xam mooy coupe du monde bi wax aussi espoir bi nga xam ne Sénégal teg nañ ko seen ginnaaw et que moom tey gëm na ne Sénégal dina sori et que ñi mu ñëw équipe nationale Sénégal regretté ko benn yoon choix bi peut-être mënoon na dem France mais heureusement fii la dem moo tax mu ko gars yi joxe leen seen xalaat on avance ensemble jaa ngeen jëf